ko ci kaw tribune bi nee nañu cotise pas njàcc pas te golo du bay baabum di dund ñun dañoo cotisé woon suñu koppat ngir lan xeex lan hmm. mbas mi xeex coronavirus yaa si ñaata yoon la fi corona man damaa communiqué communiqué communiqué communiqué ba dog ci corona dama dégg sax man kii lañ ma doon oowee nii kii doon def euh, euh, euh, kii doon def communiqué bi RTS kan la. ñi doon def communiqué RTS man saa bu ñu taxee ma taxaw. docteur ñu communiqué ma communiqué dama dem docteur Ndiaye dama ah, ak ñoom Aliou sax ñoom seen. tribune yéen a kaay ne. nga foog ne loolu dina niil. nga foog ne mille milliards yooyu dina niil. gox yi rek. koppar bi nga xam ne almuntaxaa moo ci njëkk dugal xaalisam nga foog ne dina niil. gox yi sama ñetti dërëm yi xamuñu nu ma def ba am ko mu dugal ko ci nga foog ne dina niil. jaaykatu caaf bi ñu dugal ko ci nga foog ne dina niil tribune yéen a kaay boo ñu waajal si campagne bi campagne bi xaw ma kan da waaye Amadou Ba bee ba mu waajal ne fu mu romb single bi na daal. gox yi. Amadou Amadou suñuy mille fu mu ne anu suñu xaalis bi single bu bees la bu nga xam ne nii bee boo mu waajal ci campagne électorale bi fu mu romb dana ko tympaniser. dina ko mu ndiiraan. tama du ko ëpp buum. tam waxuma la tama waaye tama bu ñu renforcer ay peegam. tribune si boppam moo parewul bu may leen mu ne tam. moo génn single bi. <laughs> nee na suñuy anamu. avec son statut de fonctionnaire milliardaire. milliardaire. ne ah nee na 1000 milliards bu fekkee dinañ ko sàcc de bien boo ñu xam ne du reese noonu de. pour convaincre le Sénégal. les contributeurs à ce fonds donc ont le droit de savoir parce que dañu am droit xam nag. absolument suñu xaalis la. dëgg la fu mu dugg fan la naxe nañ ñu benn euh, euh, enquête bu nga xam ne nee nañ tëgg nañu ko ña nga ba. waaw am nañu ñu convoqué. waa léegi ana moom fu mu mujj. enquête bi kay pare na mi ngi ca bureau. yàgg na mais am na fi ay dossiers yu bari yu nga xam ne fast track lañ ko def géré ko. waa procureur nañu defal le point. waa léegi procureur bi nga xam ne man na euh, moom jàkkaarloo euh, taskatu xibaar yi. dara ci moom procureur bu ñu ko nee bul dof de. ah non moom kenn du ko wax bul dof. yow de xanaa nga sëñ ko. la la non moom kenn du ko wax bul dof. non mais mën nañ ko ko wax ah, bul dof de. waaw. <laughs> enquête bi nee nañ ana mu fu mu mujj. yéen kaay bi nee na bi boo ngeen waajal te xam ne mënta yombe noonu de xaalis bii mille milliards yii ñun ñu cotiser ko biyee boo ngeen xam ne dina mel ni single bu bees ci campagne mais maam xam nga lan moo ma métti ah. ñaari scanner di disparaître aéroport. loolu itam ci singal yi lay bokk. non parce que ñaari scanner yi. ñaari tant que gisuñu scanner yi ak xamuñu dara ci scanner yi. mais mais mais lan la wax ci ñaari scanner yooyu. ah ma kan moo ko jël. mais waxuma da ko jël waxuma da ko jël mais dama ne scanner yooyu moom moom il était moom mooy responsable. bu rëbb ah explication la jox. waaw ah banque en tout cas ñaari scanner yi bokk. en tout cas. disparaître scanner yi dina feeñ Fabrice. waaw incha allah. Euh, demandaat. Doudou Ka nous doit des explications fan la ñaari scanner yi. non scanner yi nag génn nag. waaw léegi scanner bàyyi leen ko ñu dem ci l'observateur. <laughs> observateur bi nga xam ne. ndeysaan sax benn xarit dem ci yàlla si. Euh, ay waay mu tudd daan jox. nee na ku sañte sañte ba jël couleur yëpp day mel da nga bokk kàkata. Eh, eh. ku bokk kàkkatam nii day mel ni couleur yëpp ngay jël. nee na mais ñii suñu politiciens yi dañoo lokk kàkkatam. <laughs> dañu koo lokk. <laughs> tey jii ñoo la mën a wax wax ju vert nii nii nii nii ba lépp verte. Hmm. ñu tourné nii wax wax ju xonq cuur ba pare na xoola la vertoon fee moo xonq fii tey. timpi sans gêne politiciens yi xoola sans gêne ba pare ñuy waat waat. Hmm. waat yàlla. yàlla bu campagne jot ñu si si si terrain fekk la yow ngay saaf ñu jël saaf ne la. loo xam man xam su nu ñuy téye ci mois. ngeen xam ne ne Sénégalais ngeen fi. Ah? ne la nag fii fii dëkk bi dafa metti yéen a fi kii gis nga bu ñu faloo voilà mais bon nguur dafa am ay réalité <laughs> il faut ngeen comprendre ñun mën nañu ko gérer tu vois saafli maafli leen ma falee dama ne yoon bi dama koy ñuulal ba mu ñuul nga fal leen wóor na yàlla yoon boobu sa lay gën a tojot ma yéen bàyyi gën a tojot yow doo ko gisit sax ne biir di tenk la lay romb changé numéro téléphone mais ku may fu wax nekk noonu dina def machine buy def changement de discours message populiste am na fi. yéen kaay bi nee na lii la ñuy dund suñu politique professionnelle bi. populisme la lii la ñu man luñ la wax nii lu dul diw laa tudd sax te boo. loolu da nga koy vérifier ndax noonu la ñu tudd. il faut ñu à tout à tout moment mën nañ am ñaar ba ñetti kayit di juddu. ñoom politiciens professionnels yi. Ah, waaw Sénégal looloo fiy dox politique dafa dox de. def politique ci Sénégal dafa dox. am na kenn koo xamante ne il a été arrêté dans un pays et on lui a demandé oh, l'État du Sénégal a dit vous avez arrêté un de notre un de nos un de un élu du Sénégal ñu ne déedéet c'est un citoyen américain. mu ne c'est un citoyen. alors que moom nekk nañu fi candidat présidentiel bi muy wàllu benn nationalité la. déedéet ndeysaan. <laughs> yéenekaay bi nee na loolu la ñuy dund nag suñu politiciens yi. suñu politiciens yi daanaka. Hmm? loolu la ñuy dund ak ñoom. ñu xamee ko noonu. luñ la wax tey di daal ne. waaw suñu politicien professionnel. luñ la wax ne. te nag seen discours yooyu xam nañ ne léegi nit ñi nag. dof dofuñu. da ngeen di romb ni sax ñu leen di ree ay ay xoolal comédien lañ leen teg yu nekk grand théâtre c' est les trucs de système dañoo xippi seen i gën di xool. les systèmes la c' est le système. xaalis boo leen joxe ñu enquêté parce que ñoo ko moom. oui. tissu boo leen jox ñu jël denc parce que duñ ko sol léegi dépassé nañ sol ay tissu yu am ay ay ay ay ay politiciens. tissu yi def ay effigie yooyu noonu. <laughs> dépassé nañ amoon na fi temps de. xeewi na xale yi solatuñ loolu. man daal tissu boo leen jox. xam naa <laughs> dañ leen benn maire boo xam ne moom nee na grand moom nañ liggéey la ko def moom. nañ ko def da nga koy woo mu ñëw. kii la mobiliser la. traite la traite la. non mais voilà mais la ñuy doxal am na réew yoo xam ne tissu politique yi. Ah. comme APR yeew yi defar tissu jox seen militant loolu dañ koy tere. waaye tamit amatul sax parce que dañ ko considérer comme corruption. non gis nga buñ solee yow yow moom tey jii man maay meeting maay meeting ma jox la junni. ak sa ak sama t-shirt hmm. nga ñëw ci mobilisation gi nga fi nga ñëwee nii nii ba ba yow la am bi gis la nii. ah fekk encaissé nga sa junni ba pare. bu affaire yi commencé ñoom romb nañ nga simmi t-shirt bi sa tegal la foofu. dem di xaar nag yaasin mu la jox ci set tamit ak junni mm. nga encaissé foofu benn jour bi rek mën nañ si dem ñetti mobilisation yoo xam ne ak ñetti ci set yu wute mm. muy 15000 yoo xam ne ni yow da ngay tëdd muy dox mm-hmm. dem pour xool laj demaat sa kër nga am 15000 loo xam ne mënoo koo liggéey fii ci réew mi day dox de dafa dox de campagne bi dafa dox de le quotidien yéen kay ne Amadou Ba biyee boo nga waajal de la paire combat Amadou mm-hmm. mu nekk nag Amadou Ba moom soxla moom opposition moom moom waxatu war war wax sa wax opposition mu nekk nii yow mooy. sa kër. gi moo yëngu jax kër moo sàmbara. nee na toutes les contestations. viennent de son propre parti. il a du pain sur la planche. mais est-ce que pourquoi. ay wujju peccor ah, <laughs> le soutien. du président nga ne. pourquoi le président n'est pas suffisant pour que Amadou s'engage clairement sans se soucier de tout ça. waaye dama ne loolu yow bu dee ñoom. ñoom ku si nekk xam nañ lu tax parce que plus les cartes en main aussi. peut-être moom moom euh, voix bi mu amoon. porte bi mu amoon ci biir. décret décret crédibilité bi décret bi. <laughs> waaw signature bi nag euh, euh, doole doole bi mooy commencé wàññeeku. waaw waaw décret Sud Quotidien présidentielle 2024. l'APR face à elle-même soo moytuwul nag la leen daloon ci élection yu mujj yi locales yi. nii moo leen APR contre APR. c'est le même scénario parce que ñoom seen biir ñoo doon defante. xanaa APR amul conseil de discipline. ah xëy na amu fa. xëy na amul mais APR musul structuré. ndax xoolal. ñii ñëpp ay yëngu-yëngal la fans club la du parti. Mame Boye Diao ngi nii fas yéene dafa teex Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye pacte bi la maye kenn xamagul te neen dee nañ lettre de démission ba léegi kenn acteegu ko. Mame jaaree ngi nii. ki ana ana Mame Diarra Diouf Sarr mi ngi nii. mais moom nangu na voilà. waaw nangu kii di Abdoulaye Daouda Diallo nangu na est-ce que nangu na. Ah, nangu na kay. nangu na kay. nangu e nangu de. ah. nangu ca kaw ak jëf leneen ci suuf. waaw mën nga nangu waa comme kaw ba pare jëf leneen ci suuf tribune yéen kaay daal di dikk nee nañ wax fa dëgg neex yàlla bu ñu bëggee moytu nag discours politique suñu euh, euh, politicien professionnel yi. Mm-hmm. nañ def tànneef bi gën ay profil yu baax am na fi. am na ñoo xam ne kenn ma mësulee na ñam ñam leen. Mm-hmm. ñoo xam ne li ñu la wax dëgg la. anti système rek. anti système kii nga xam ne mooy Siré Cissé responsable gëm sa bopp sa mbuur nee na tànneef bi gën mooy Bougane Gueye Dany am nga ci droit. nee na mooy mooy profil bii gën profil bi nga xam ne moom rek moo mën a jàkkaarloo système defanteex moom te dellu ci ginnaaw ba mu songee xeex ba léegi dellu ci ginnaaw ñu jëndoon xeex bi yëpp delloo nañ avance. Mhm. waaye nee nañ buggaan da nga gis bu mu jëndee xeex ba léegi delloo avance delloo avance day perdre en crédit. moom si récissé nee na profil bii gën buggaan la buggaan moo mën a génn Sénégal ci jafe-jafe yi ñu nekk sénégalais également ci jafe-jafe yi ñu nekk nee na fu mu nekk nii ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk si nguur xam nañ ne dañoo laj gémmiñ guy nàcc la du wax jàmm. boo demee sa mbuur nee na Cheikh Issa Sall ma ñu dénk mbuur def fa dara dara la deful sa mbuur kenn xamul lu muy nuru mbuur yépp lañ jaxase nee na nag loolu nag war nañu doy misaal ñoom ci boppam ñu soppi doxalin ñam ñeneen ñi tribune yéene kaay ne ba tey nag nguur a ngay doxal de waaye eh, opposition doxalu ndax nag nguur fu mu nekk nii ñu ngi doxal naajement di def seeni i tournée di dugg ci dëkk bi di kii waaye opposition lu ñu teg ñu ne leen mukk du ca xam naa opposition ngi doxal de dañ leen a fësalul rek. opposition ba mu ngi doxal waaye doxalul Sénégal de ma nga ca réew. Ah, mais comme parrainage bi moom dafay nekk day téyewaate. mi ngi nii il faut avancer lentement et sûrement. sûrement waaw ñu ngi avancer sax mais depuis tuuti. oui et ne pas. feeñ fës. délapider tes ressources. c'est vrai mais mais lu leen metti woon ci Sénégal fii. Hmm. taj nañ ko sa New York. Hmm. yoor yoor moo ko manifestation patriotique non sonal nañ ni ñu teeroo waa président Macky Sall ak délégation mastam nañ ko fa trop waa kër Sonko dama ne nekk def nañ leen këpp nañ leen <laughs> ko moom moom ay xewer xam naa dañ koy taxalal doxam naan lu leen lu ci Sénégal faj nañ ko foofee nga xam ne moo di sa sa sa biti réew parti socialiste nag fu mu nekk nii war nañ wax na fu ñu taxawee le point actu moom moo ko le nee na PS fu mu nekk nii 40 ans de pouvoir ñu toog 17 ans yu nga xam ne ni daanaka dañuy langaa bu clando te xëy na ñu ko jàmm candidat. 17 ans. est-ce que itam dañuy wékku rek si Khalifa Sall. mën na nekk itam. moo fi sës wala. moo fi ses foofee sa mbuur ba tey la ñu des. Oumar Youm dafa convoqué woon maire ya xam ne ñoom fa nekk sa mbuur. 16 hmm. maires yi. beneen problème mu am. juróom képp ñoom ñoo fa wuyu. te li mu doon wax mooy di ngi soutenir Amadou Ba. Mahmoud Saleh mii. ñëwul Maguette Sène ñëwul. Cheikh Issa Sall ñëwul. Sophie Allé euh, euh, Aïssatou Sophie Gladima ñëwul. ak ñeneen ñu nga xam ne ni wuyu ñu sa ndajama. y' a problème. y' a problème de. y' problème de. y' a problème de. le point actus dafa dikk ci Moustapha Gueye directeur général bu CROUS bu Bambey responsable politique APR Diourbel nee na homme des grands chantiers la Amadou Ba un homme d'état la vision très claire en tout cas moom Moustapha Gueye DG bu CROUS noo nee la gisee ci mbir mi moom waxul lu jëm ci wàllum jàngum Diourbel gën Mame Mbaye 8 a kaay ne wàllu mbëkk mi ba tey gaañaa nga ca 217 ci ay candidats yi ñu interpellé ña ca Mbour le moment nii. kon ña nga ca ba tey baax na ñu jeexale ak kii nga xam ne moom moo di réew mi quotidien parti démocratique sénégalais am na lu leen doy sëkk nag ndax nag fu mu nekk nii militants yi dañoo jaaxle xamuñu fan fan la ñuy teg seen tànk fu mu nekk nii ña ah, ca mën a jaaxle ba de nee leen nañ dem xool ku ñu jàppale libéraux yi fu mu nekk nii xamuñu ndax Karim Meïssa Wade dana ñëw am déet